Assalamualaikum mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar ginaaw baatu onze billahi minas seytaani rajim ginaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sante suñu ay wajur di leen nuyu yeen ñep ñi ñuy top ci étoile tv di leen siyaar di leen magal di am bekté ak contentement ci yeen comme liñ leen ko daan waxé tay ba ci étoile tv comme liñ leen ko daan diggé fo leen ko bëggé ñu dem set leen ko waye tay dañoo sét si xalé bo xamni ma sha allah setan ngeen ko demb and rek ci étoile tv mu beure beure bu reuy muy amul yagal mu beure ak angura bu Mbora nekkon beur bo xamni mën nañ ñi mooko jiitu ci làmb moo ko ëpp expérience waaye xale bi dem def exploit bu rëy comme niñ koy waxee dañ daan wax expérience face à face à la jeunesse. mu nekkoon combat boo xam ni combat bu am solo la amul yàggal daan ko ci méthode boo xam ni dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ak moom waaye bala ñoo sore dañu bàyyi champion bi mu nuyoo waaye tey ñu fekk ko ci biir dëkkam fekk ko ci ay xaritam fekk ko ci ay am di jàmbam fekk ko ci ñii nga xam ni ñi ñi ngeen gis mu toogal ñoom la ñuy bis ndax nag mbër li ko ni nga ko waxee mbër dafa yaatu ginnaaw bu ñu amee bis ñii ngeen gis ci ginnaaw ci géew bi doo leen gis waaye bu ñu amee bis ñoom la ñuy àndal ci terrain ya di wàcc ñoom la ñuy duggandool dugg ci àll bi ñooy sol t-shirt yi ñooy jënd ticket yi tey ñu fekk ko ci seen biir mu nekk loo xam nag geste bu am solo la ndax mbër mënul dem sans public am tey ñu gis ko mu toog ay xaritam ay doomu ndeyam waaye bala ñoo sori di ñëw ci biir waxtaan bi ak ci comba bi nga xam ne moom bëri démb dañ koy bàyyi mu nuyoo amul yàggal ñu ngi lay nuyu ey Pape Seye lay fay ginnaaw boon sant yàlla julli si yonent ñu ngi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa kër Bakar gépp di nuyu wit villages kër Baawa kër Ndiobo kër Male Thialé Minam Mbéyeen maa ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp waaw di nuyu sama am di jàmm yi di nuyu fans yi di nuyu ñëpp ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi doon jàpp si combat bi ak di si doon sonn maa ngi lay bu baax di la gërëm waaw di la delloo njukkal daal mooy loolu mbokk yi am na solo dégg ngeen champion bi noonu la nuyoo mu nekk lu am solo waaye amul yàggal nga doon bëri démb làmb ju bëri coow làmb ji yàgg ñu jàppoon ko daanaka ba mu jege si yàlla def ñu annulé ko ñu jàppaat combat bi liggéey bi ci wàccaayu combat bi bala ñëw ñëw ci bisu làmb préparation làmb ak ni mu méttee ñu annulé combat bi jàppaat ko wàccaay bi nan la demee woon. waaw wàccaay bi mën naa ne mit na mitiwul nag parce que ñun toogunu ba am làmb di di soog di ci nekk toujours rek ñun ña ngi ci naan mbër mu ndaw. du préparé day pare ñun ci tànk yooyu la nekk moom la ñuy doxee waaw ñun toogu nu ba am combat rek di ci toog a nekk moo tax combat bi même bu ko doon jàpp cent fois date bi heure bu bu bu heure bu seet dañ koy day fekk ñu pare que ñun toogu nu ba am làmb rek doog di entraîner quoi moo tax làmb ji mënunoo si benn côté. Mhm. mu nekk lu am solo parce que li nga wax neex naa gëm démb bi nga sumee ko macha allah képp kuy dund làmb wala képp ku xam mbër bi la xoolee dina xam ne xale bi tëddul woon di nelaw waaye nga doon bëreeg koo xam dafa am expérience ci làmb biñ ne la Angora ngay bëreel ak expérience bi am ci làmb jiitu la ci làmb nga nekk xale daanaka mën nañ ni sa jom ak sa njàmbaar sax moo tax ngay bëreek ñooñu waaye ñi nga maaseel ci làmb bëree woog ñoom tey boo xoolee ñi ngay bëreel ñëpp ñoo la xaw a jiitu ci làmb mais jom ji ak fit moo tax ngay bëreek ñoom Angora ak expérience bi est-ce que amul dara lu la doon gêner avant combat bi amul dara lu may gêner parce que man nee naa dama am si loo xamante ni dama ko dama cee jóge muy defet te ñoonu ma yàlla delluwaat waaw mana aja dalu delluwaat nag mais jàpp na ne du jamono ji parce que ndaw laa damaa nekk am lu mu bëgg waaw gone yab ma nag gars sama ginnaaw mooy loolu su ma me combat dañ ciy jàpp dañ ciy sonu lépp luñ man dañ ko ciy def kon waruma dem fenn di wane ben ñàkk fayda waaw angula na dëgg na moo ji si du muy bëree booba man xalaatuma sax nekk mbër waaw mais téemu nag làmb nak du ak mas dabante la waaw làmb du mas dabante la ba dal combat bi xamna naa ne li mu ñëwoon pour bëre koog man lool la indi man tamit moy lool ndax xamna naa ne combat bi maa ko soxla mako gëna bëgg te mako gëna nekk ci yoon tamit moy lool nonu mo dox tay démb ma ñew def tek rek xam nga mooy loolu noonu waaw. mu nekk lu am solo ñu ñew demb ci bisu lamb ji amul yagal ngay dugg si waa Bakar gépp ëmb la ma gis gaay yi ñëw ci mikaay saako yu bari biteli nga dugg si ci lamb ji melni ne ko xaptalu ñew yëngu lu waral lool waaw fi sama deug la sama deug mo fi nekkee lepp lo xamanteni mbeur da koy def lépp loo xamante ne day amateur da koy bëgg dama dama cee war dama cee war a yëngu parce que sama dëkk la waaw dafa am ñu bari ñoo xamante ne fee nekk di ma bége waaw te yàgg noonu maa bëgga a seetaanee te amuñu temps amuñu jot kon ma yàlla dogalee mooy bëri si fi nga xamante ni fi laa dëkk muy sama muy sama muy sama muy sama dëkk waaw kon su ma su ma fi wàccee rek maa war a yëngal ba mu yëngu quoi comprendre nga ba yëpp xam ni man li ma nekk caaxaanu ma ci bëgg naa ko quoi waaw. mu nekk lu am solo comme ni nga ko waxee bëre à domicile yombul. bëré bo xamné ne yow ya réservoir say mbokk taxaw say rak taxaw say mak say am ni jàmm ñëpp taxaw di la seetaan mu nekk lu am solo waye comme niñ koy waxé di profito di ci gëreum ak di ci sante promoteur bi nga xamné mo teggon lamb ji muy Abdou Gomaay parce que dem ma ngi koy wax ci reportage bi yombul parce que amna ño xamné tay ne ñi ngi seetaan lamb ji amana fi lañuy ñuy lamb parce que jot gi du len may ñu genn ñen ñi moyen ni du len may ñu mu permettre len ñom ñëpp mëna genn tok jakarlok seen dom yu mais amul yagal nga dugg ci biir yow ak nga pare bu yag taxaw di xaar lu waral téra paré pare non man sama xama leen benn affaire laa la wax nee naa la maa xool sama boobu bu tudd sama boobu amul yàggal amul yàggal laa tudd sama boobu man jàpp naa ne sama dara du yàgg man na loolu laay doxe man na loolu laay doxee si biir géej quoi moo tax lépp lépp si loo xamante ni ci bépp bépp côté la ma ciy teel a pare ñëw taxaw xaar waaw que jàpp naa ne làmb moom du du du naxante quoi loo ma démb li ma def ay tex xel ak affaire yooyu noonu rek mais làmb ji wax dëgg yàlla gépp ko gépp koo xam ne maa ko ci gën a nekk comprendre nga. moo tax affaire daal mooy loolu quoi noonu la demee. mu nekk lu am solo mais ñu gis amul yàgg comme ni ma la ko waxee bi nga dugg see nga tuus yëngal dëkk bi def li nga war def yëpp mais nga dugg ci biir géew bi maa ngi koy wax boo xoolee maa ngi koy wax Kara ci reportage maa ngi naan amul yàggal nga def tekk gisatuma nga def bruit def li nga war a def rek taxaw di xaar lu waral tekk googu foofu avant arbitre discipline. non làmb nag dafa nekk benn affaire boo xam te ni bu dee ci biti mën nga yëngal man nga xama bégal amateur yi avant làmb nag avant combat bi ban ngaa bégal amateur yi xam nga supporter yi ñoom ñëpp mais bu at bi dese lu siif la nag moom da ngay xam li nga xamante ni moo la fi indi fulla muy fulla ak fayda te làmb ji daa nekk li la koy wax làmb ji daa nekk làmb joo xamante ni même bu ma doon sama bakkan bu doon des fee sax damay indaale ndam parce que man làmb ji daanoo ndakaaru sax gënal ma daanoo fii waaw man bu ma tegal làmb ndakaaru làmb fii pour ma daanoo fa la daanoo ndakaaru gënal ma daanoo fii ma dëkk parce que daal nekk loo xamante ni lu yéeme la te ñaanu moo ko yàlla suñu borom waaw may sant yàlla bu baax ci victoire bi quoi. mu nekk lu am solo arbitre sifflé na nag amul yàggal ñu gis Angoura ñëw indi stratégie fas yéene bëreeg yow bëree mag ñu gis nga cadré ko tànc ko ci côté saaku yi moom it lamb jëpp mu pare pour bëree ko lang heure boo arrière benn pas avancé moom mu arrière benn pas nga dox cadré ko bi mu ñu indee loolu jaaxle woo parce que amul yàggal comme ma koy waxee maa ngi wax ci reportage bi amul yàggal xaar. bu arbitre sifflé day tàkk sa kaw parce que xale la te gëm na li mu yor mais ñu gis nga dal ci combat bi toujours nga koy cadré di xaar mu jóg. non làmb ji démb nag loolu laa mën a bëri koi parce que amul yàggal kii de Angora xam naa bëreem dama koo xam te xamuma quoi moom dama koo xam te xamuma bokk nañ benn géew mbapat muy bëre man ak moom bëreem foofu laa ko xamee waaw foofu laa xamee bëreem quoi. waaw ak ñeneen ñoo xamante ni tamit xam nañ ko jiga ko waxuma ci moom qualité yoo xamante ni tamit bi mu duggee ci biir góor bi gis loolu mooy ci saako yi lay bëri jee ko toppee foofu la lay yóbbu boo ko sëkkatalee da lay da nax da lay nax juum loola hmm. ci xeex la moo bëggoon a yóbbu nag ma ne ko doo ci dal waaw. mu yëkkati ñaari arrêt droit ñaari laaw yëpp benn baaxu ci ba ñett bi ko ñeenteel bi su koy daw jël fële bi amee nga daan ko jël bu rëy. parce que dafa yëkkati laaw droite ma ne amul yàgg ma ne Angora weer na boppam munul xeex mu waat baaxul ba mu ko yëkkatee quatrième fois bi da nga koo rappel lan moo waral lecture boobu xool bi nga ko xool ba xam ni kii li muy xeex baaxul. non dama koo jàng bi làmb bi maanaam bi arbitre ne tag sifflé si laa ko jàng ci laa xam ni kii tey ji day ñëw cookaat ma ci xeex ma wuyu ko si mu jëm maa juumloo mais nee naa comme li wax sàng du ci dal ndax làmb ji daa nekk làmb joo xam ne dama ko bëgg. làmb joo xam ne làmb fonk la gis naa mu yëkkati laaw benn benn benn coup xam nga dóoraat ko ma ne kii ma ne kii bu bu dóoraatee ma jege ko ci laa ci laa ko xool ci ay bët sëkkatal ko mu jàpp ne damay xeex ak moom ma bàyyi mu laaw rek ma daw jël ko jeexal combat mu nekk sit bu am solo comme ni mu ko waxee amul yàggal daan Angora jël bu rëy macha allah nekk xale nekk ndaanaan mais amul yàggal ginnaaw bi nga daanee Angora ku ne xam na nag dañ la doon xaar ci lamb amaana sa contre Mamza boo ci génnoon ak ndam sax combat bi kenn du ko wax doo bëreeg Angora am na feneen foo tegoon sa bët mais nga am défaite comme comme lamb noonu li ñu koy waxee ku daan da dem ku daanu xaar waaye tey ñëwaat nag relancé wu wala dugaat ci biir gars yi tey boo ma doon citeel say potentiel adversaire ñoo xam ne amul yàggal leer na ko nit ñii tey dafa war a bëreeg ñoom te bu bëreeg ñoom mën na cee génn ak ndam waaw damay tàllal sama grand yi loxo rek damay tàllal sama grand yi loxo ñu may ma chance bu baax a baax a baax xam naa ne man wàccu ma waaw parce que trois deux combats laa defan waaw bëri koo xamante ne xam am na six combats xama ma sept combats kon yaakaar naa damaa may chance kon bu ma daanee jàpp naa ne fa ma nekkan ba léegi fa laa nekk wàccu ma kon fa ma nekkoon ba léegi fa laa nekk samay morom nan ma jël rek wala grand yi fi ka am Siré Dia mi doon bëre grand bi na ma may chance ma bëri ak moom waaw. loolu am na solo parce que démb gis nañ grand combat bi taxaw nga ñëw sampal leen mais mu mel ni moom nga gënoon a soxla. waaw parce que Sa Thiès xam na li tax duñ bëri man ak moom waaw nee naa man képp koo xamante ni yaa ngi igil igil dalit Samba Diaw rek man jàpp naa ne sama làmb ak yow moom du mën a nekk waaw loolu donc waaw ñëw waaw loolu demee moo tax ma bàyyi ko fi ma tax Siré Dia na ma may chance bu baax a baax a baax dafa daanu nag bu daanoon moom day wàcc waaw dafa jël dafa dafa dafa daanu man ma daan kon kon làmb la làmb boole noonu man ak moom dafa war a jël ñu bëre lu neex man ak moom mu nek lu am solo promoteur yi dinañ gis lolu Abdou gomay dina ko gis Sidi jaxate dina ko gis ak Baye Samba dina ko gis ak ñepp ñi nga xamni ñoy teug lamb ci région bi dinañ ko gis mu nek lo combat bo xamni nak machallah allah adversaire de taille lañ te bu ko laaje jaaduna amul yagal si rajo ndax xalé na nak donte day doog ñew waye mi ngi def ay preuve am te bu jugee ak keur Bakar gep bu jugee ay mbokam top ko kon gaay nañ ko tal loxo mu dem bëre parce que lamb nak du ak maas dabante la kenn ku ci ne ak sa période amul yagal machallah mi ngi def ay preuve am mais ginaaw bi nga jugee ci combat bobu comme nima la ko waxe say mbokk dañ laa sas ku ne xam na ne ku mel ni ndax dëkk bi da nekk say naataango ko ci mel ni Jéeri Junior xam nga ak yow ngeen nekk fi boo leen jugee dama naan dama koy wax démb maraasam bu ñuy déggante téléphone ma ne ko kër Bakar ñu ngi bëgg a wàccoog xale yi ndax heure bu jugee ñëpp jug mais xale yi nag léegi ñoom ñoo deseel waa kër Bakar tey boo leen doon jox dik boo leen doon dik waa kër Bakar lan ga leen di wax. waaw maa leen di wax ñu jàppale ma bu baax a baax a baax parce que laa rek nekk ci yoon waaw te làmb nag dafa baaxoo jàppale làmb moom mu du mel nu mbën mi rek moo mën a demal boppam waaw làmb dafa baaxoo jàppale waaw ma lay wax ma leen di soññaat bu baax ñu ngi ñu ngi ciy jàpp nag mais ñu gën see jàpp bu baax a baax a baax te xam ne xale lan làmb lañ bëgg moom la def moom lañ def muy suñ métier kon li nga xamante ne dafa fu ñu drapeau kër kër Bakar rek moo na ñor ak Tivaouane. foo teg sa bët fan fan fan lan nga leen mën a dikk ci làmb waa kër Bakar. waaw nan ma xaar roi de rek roi bi incha allahu rabi bu yàlla defee jàmm waaw dinaa leen ko bu soobee yàlla. parce que foofu la teg sama bët quoi waaw parce que jàpp naa ne foofu la foofu la mbër yëpp bëgg a àgg n'est-ce pas man tamit foofu laa bëgg dem waaw. loolu am na solo mbokk yi boo déggee li ma xam ni gëm-gëm la ak fit parce que nag li koy mayee mi ngi fi macha allah xale bi boo ko xoolee xam ni mi ngi liggéey te lamb nag loolu kese la liggéey la am doole am kartan sey mbokk ëmb la parce que ku fi ku fi ku fi mën rek dana laa dimbali. te moom daanaan la macha allah bërekat la bëre ba kenn amul kenn kenn dootu ko werante te macha allah bu amul bisit day génn dugg ci àll bi di ñàkkanteeg ay moromam te mbër loolu la ñuy xaar ci moom mi ngi ci kon na ko waa dëkk bépp tegaat loxo moom it mu takkaat jaaj yi nekkaat ci daan na Engoura waaye lamb jeexul bu subaa na takkaat ay dàllam nekk ci waaye lamb ji ku ne xam na lamb dafa métti amul yàggal ku am bis nit ñi dañ ciy jàpp am na ñu ci doon sonn tey boo ma doon ñëwal ci ñooñu ci cant ak ngërëm ñi nga xam ne ñoo doon jàpp bi. waaw balaa dara damay sant sama grand bi toog muy moom day sonn si combat bi torop mm-hmm. waaw day si sonn torop sax day boole fukkam ay xama léppam mm-hmm. yàgg taam xama di ci sonn torop waaw maa ngi koy maa ngi koy félicité bu baax a baax di ko xama di ko sant di ko gërëm waaw di sant kamit Alla Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax ñoom dañuy sonn ci man comprendre nga di sant jéeri mi toog nga xamante ne sama grand lépp loo xamante ni si làmb rek man su ma gesoo gis ko du dara waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw di ko ñaanal jàmm di ko di ko wax bu amaatee combat yàlla na suñu borom may ko ndam waaw moom jàmm si moom quoi waaw di sant sama grand yi xamante ne ñoo nekk ci kaw muy Ablaye Diagne Mbacke ca Robane maa leen di sant bu baax a baax a baax jàpp nañ ci di sant Alsaan Ka maa ngi koy sant di sant ànd jàppale suñu mbër yi maa leen sant bu baax a baax di sant Pape Samb Cumbur Cumbur maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw moom heure amee combat da ci def lépp loo xamante ne da ko cee man jàpp naa ne sax yàlla may ko am am boobu mais day sonn ci man quoi bëgg-bëgg lay demee kon maa ngi ñaan yàlla dafa borom defal ko jàmm quoi xewal gi gën a yokk mooy loolu waaw di sant waa kër Bakar gépp di sant monsieur la Diop maa ngi koy sant di sant mbay sa Louga maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Serigne Khoule kër Ndiob Pape Khoule ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax képp koo xamante ni jàpp nga ci combat bi rek maa lay sant su ma limee nag du ma matal mais dama dul juum waaw di sant 100 pour cent Tivaouane bi maa ngi sant ñëpp di sant kosi yi si mel ñoom Abdoulaye di sant Signor waaw di ñëpp di sant ñëpp ñoo xamante ne daal jàpp na ci combat bi ci wàllu entraînement beeg ñëpp waaw su ma limee daal damay jëm di sant sama mafia bi nga xamante ñoo ne ci ginnaaw ma mafia 44 bi mburgu ndaw gi toog xam nga dama ñoom dama leen a jaral lu ne sama amee combat dañuy sonn te yàlla mayul am am boobu mais lépp lu ñu xamante dañ koo am rek dañ koy boole seen i dëba xam nga lépp boole jox ma waaw li leen wax yàlla gis naa lépp daal yàlla na saa borom doole xéewal waaw di sant di sant sama yaay bu baax nag di sant sama yaay sama yaay da day jàpp ci combat bi moom nag xam naa ne amul am-am amul lu mu xamante ne dama koy jox mais day yeewu ba day yeewu fajar ju jàpp ñëw di ma ñaanal kon loolu tamit dama jàpp naa ne yëg-yëg ci doom rek moom moo ko moom moo ko man maa ngi koy ñaanal yàlla saa borom defal ko jàmm di sant sama grand frère mu Diop maa ngi koy sant bu baax a baax moom maa ngi koy sant bu wér waaw di sant sama mag yi Ndeye Faye waaw ñi nga xamante ne ñoo doon nekk ci waañ mi di sonn maa leen di sant bu baax a baax a baax di sant wa kër gépp ma leen di sant di sant waa koñ bi wa dëkk bi ñëpp ma leen di sant dal waaw paa ak maire yi jigéen yi xalé yi ndaw yi ñëpp ma leen di sant dem bu ma ñëwé sama xol dafa fess parce que gis na leen ma téro gis na leen ma taxaw waaw ma leen di ñaanal jaamu dal diko saaku ci ñoom tamit moy loolu wa ndar ñi ma leen di sant di sant wa ndar ñi bu baax ñoom Cheikh kayende ma leen di sant di sant ñoom Mara waaw ñoom mbay ma leen di sant bu baaxa baaxa baax ma ngi sant ñëpp waaw di sant ñoom mam Cheikh ñoo nga xamante ñoom ñoo fa nekk maa sant bu baax a baax a baax waa Joal ñëpp tamit maa leen di sant waaw ñoom gis naa seen i yëg ci man quoi ak bëgg bi démb danoo taal seen oro comprendre nga ñëw seetaan si combat bi li muy gudd gudd danoo duggaat kon lool yëg yeg ci nit rek moo ko man quoi waaw maa leen di ñaan yàlla saa borom dafa leen jaamu foofu noonu waaw jaajëf mbokk yi loolu mënul ñàkk parce que comme ni ma koy waxee mbir dafa yaatu ginnaaw macha allah lool am na solo waaye comme ni ma ko waxee Siré Dia amul yàggal combat boobu xawma la la ci promoteur yi xaar dinañ ko dox incha allah ndax làmb ju neex la làmb coow la làmb ay adversaire de taille lañ te combat bu neex la waaw Pam Meng Kara loolu seen loxo seen loxo laa ko teg combat boobu dafa war a taxaw waaye mbokk yi étoile TV comme ni leen ko daan waxe foo leen ko bëggee incha allah ñu dem jëlee li leen ko du ñu sonn du ñu seen mbégte rek la ñuy jaamu loo leen ko bëggee noonu lañ ko defee bu soobee yàlla comme ni ñu leen ko waxee woon dinañ leen toppal champion yëpp di leen indi benn par benn ndax lii rek moo ñu tax a jug doxal waaye comme ni ma ko waxee damay félicité waat bu baax a baax Abdou Gomaay Diop moom mi nga xam ni moo ñu joxoon journée bu rëy boobu dem aju ànd ak Kajoor Events yëpp ak ñi mu àndal liggéey bi di ko ñaanal yàlla di ko wax bonne continuation di wax ñepp nañ ci japp bu baax baax ndax lim def dembu yombul ku ne xam na ni lamb dembu yom ji metti na ci moom lol lol lol mais mu sacrifier wo ak lu metti metti metti mu jaayante ko ba begg lol ñepp aduna bepp dembu contane dembu ku ñew kër baba ali ma xam ni ñii ñi ngi dund lamb ñi nga am bekté ñi nga am contentement waye di beggé tamit fiñu tok wa kër bakar gep parce que mënuñ fay ñew ba génn te nuyuwuñu suñu grand ndax mom machallah day japp ci liggéey bu baax muy mara sàmb légui rek ñi ngi déggante muy borom baax wa mom day taxaw ci mbir yi bu baax baax di ñaanal jamm ak li mu ay rakam yépp yalla defal leen ko waye di beggé champion yi ci fekk comme ni ñu ko waxee amul yagal jé série junior ak champion yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu ngi leen di bëggee ak étoile TV bu yoon jeexul waaxasul du jeex dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen i ndaanaan fa ñu yem ak ba beneen yoon